Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. ci wolof rek. lu war a waroon lu war a waroon sa sa euh, la maa si cabinet maître Richard Diatta dañu ma ma euh, woowoon fii. ci ci Thione Seck bu ma fii pour ma jox ki ñuy wax Alioune Badara Diagne benn décision de justice bi nga xam ne juge bi moo ko romb pour que mu mu li ñuy wax mu mu defar mu constituer une garantie maanaam mu mu dajale xaalis bu toll lu toll ni millions teg ko pour garantie balaa muy exécuter décision bi nga xam ne moom la yor. Euh, moom moom la yor euh, contre Thione loolu man nag sama liggéey ñëwuma pour xool ndax expulsion bi ni ñu ko defee noonu la wala du noonu man dañu maa woo woon uniquement en tant que huissier ndax pour ma ñëw jox Alioune Badara Diagne décision bi nga xam ne juge moom la rendre. est-ce que bagage yi ñu génnee yow constaté nga ni am na bagage yu ci yàqu wala yooyu moom waaw man comme li ma wax rek damaa ñëwoon uniquement pour jox Alioune Badara Diagne décision. bi nga xam ne moom la juge bi romb defaguma constat pour xam ndax bagage am na lu ci yàqu am lii ndax li ñu ma woowee mooy ma signifier ko décision bi tey sama liggéey tey fa la yem. allo. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.